baa ngi bindee ci Kaolack fii ci Medina ci ñaar fan ak juróom ci rabi saani ci atam junne ak ñett téeméer ak fukk ak benn ci gàddaay gi maanaam ci juróom ñetteeli at ci fayda bi jëm ci mboolem soppe yi taalibe yi gannaaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahim mu ne gannaaw loolu gën caa tedd ji nuyoo gën caa yëkkatiku yi barke tukkee ci tëbbëg gën caa tedd ji mindéef ci ngëneel ak aji bind suuf ak asamaan nuyoo yu tedd yooyu moom lay wax ne mu ngi jublu soppe yi fuñ mën a nekk ñiy góor jigéen tukkee ci ki ko bind jëm ci ñoom muy ku leen bëgg ku leen yëram ibrahim na xay abdullahi tijaani gannaaw loolu mu ne maa ngi ñaan yàlla mu xool jëm ci mboole seen ci bëtëb ngërmaande ak ñëweti ak lut ak mbëggeel ak xabul maanaam nangu Baye waxoon na ci benn waaritam mu ne ñooñ tariqa bi yàlla jagleel na leen juróom almahabatu wa rida wal qabul wal amaan wa soxba mu ne ñooñ tariqa bi yàlla may na leen lii maqaama yi yàlla leen ko may yàlla may na leen mbëggeel ku ko déggut seetal ni ñooñ tariqa bi mel nga jàng li ji wax qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah yàlla ne yonentu waxal jullit ñi bu ngeen bëggee yàlla topp leen ma man yonentu bi yàlla bëgg leen seetal ndax ñooñ tariqa bi ñi bàyyi wax ne am nañ bëggeen ndax ñi ngi topp yonentu bi wala topp yonentu bi maanaam ñi ngi topp yonentu bi kon bëggeel gi aaya googu saxal la leen ko وجب محبتي وحق محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجازين فيها والمتبازين فيها والمتصدقين فيها حديث يوجي تكتنا لهم بقيل سمم بقيل ورنا نيال نيغا قمنا دنيي بقين تنغير من لن سيان نيون طريقة بي بقين تنغير موم يا الله ولا نيغي بقين تنغير موم سال بي لون توت توت نك فين جوغي فازان تكوانا لول بون في جيني ني بوكو asakaay ñi ci saal bi la ñu nekk waaye ñi ngi jugee Nigeria ñii ngi ne jugee Tchad ñii ngi nii jugee Amérique ñii jugee Mauritanie ñii jugee Ghana ñii jugee Burkina ñii jugee Sénégal dara dajalewuñu benn business dajalewuñu lu may faydu bi nga xam ne Cheikh Ibrahim yàlla ko feeñal ci loxoom muy def jaam yi ñi ay jaamu yàlla di bëggante ngir yàlla di demlante ngir yàlla di jëflante ngir yàlla di jékkiyaale ngir yàlla te yàlla wax ne ñi bëggante ngir moom yàlla bëgg na leen kon xam nañ ne loolu daf ñuy leeralal li bàyyi wax ne ñooñ tariqa bi am nañ bëggeel ku ko déggu tim nga déggee ko foofu wax nañ ne ñooñ tariqa bi am nañ rida am nañ ngërmaana yàlla يالله وحنا شي جامع ميغا خامنا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ربه ني راغال يالله ño am maqam bobu yàlla def leena geureum ñi geureum yàlla ñi xam nañu ñooñ tariqa bi ñu ragal yàlla lay da ragal yàlla moy top digel yàlla yi bàyyi tere yàlla yi kon ñum am nañ lolu ndax ci lolu lañ ne bu waxee ne ñooñ tariqa bi am nañ qabul yàlla nangul na len Cheikhu tidiane moko wax wax ne salat fi zawiyati maqbulatun waye kum jaaxal laaj ko alquran da do gis yàlla waxul ne inma yataqabbalu allah min al min al muttaqin inma yataqabbalu allah min al muttaqin kon bàyyi waxe ne ñuñ tariqa bi am nañ qabul moom bam ko waxe rek ñun xam nañ ne loolu am na kii laajte lu loolu amee loolu kooku wax loolu ñuñ tariqa bi ay muttaqin lañ te yàlla wax na ne ñi ragal yàlla yàlla nangul na len انما يعتقب الله من المتقين من نيون طريقه بي ام امان ام نن كولير تا خمغا نيون صاح شيخ تجاني واخنا ني ليم ديغي سي طريقه بي ييب كوكو جيل ارجان nga جيم سي شارت نك بول سول مبوم كولير باي دون نكو ام مبو رك يانكو سول سا نياتا مبو نك سي سوليس يو خامن سولوكو من nga ام مبو مو رافيت تاي سول مبو يتروخلو kon solo mbubb moomu kon Cheikhu Tidiane wax ne charte bi bi charte adami lubsi xullatil amaani min makrillaahi moo lay loo ci liñ ko garantil ci tariqa bi bàyyi waxaat fii ne ñooñ tariqa bi am nañ kóllëre buñ jaawale am kóllëre ak sol mbubam kóllëre ndax ku ci nekk am nga mbub moo solut fi mu ne nii kóllëre gi yàllaa la ko may may la sol mbubam kóllëre nag mooy yow nga koy doxee di wax ne ah man kat comme àjjana laa jëm Cheikh Tidiane nee na ku jël kon may def lu ma neex boobaa dootoo bokk ci ñun tariqa bi kuy def lu la neex mënoo nekk taalibi Cheikh Tidiane taalibi Cheikh Tidiane mooy kuy julli di or di joxe asaka bu ko waree dem néeg ba bu ko waree di def yu baax yi di teet yu bon yi di waral farata yi bay waral yi warut waral farata yi ci nga paree ba ñëw ci wirdu lazim wirdu lazim warutoon yaa ko waral sa bopp kii waral li ko warut kay li ko waroon waxi nopp waaye ndax alquran wax na ne amaanu am nañu ko am alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te seen gëm yàlla gi booleewuñ ko bokkaale yàlla walam yalbisu imanahum bi zulmin booleewuñ ko bokkaale yàlla ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun comme am na ñoo xam ne yàlla tudd na leen ne am nañu am na loolu lay bàyyi wax rek waxul leneen lu wuteeg alquran am na benn taalibi Cheikhu Tidiane boo xam ne xam la tudd koo xam ne dafa jël tariqa dafa jël tariqa ci Seyd Mawlid Fall la jëlee tariqa xisa mu ngi ci kashful hijab fekk loolu moom dafa jëloon tariqa al qadiriya taalibi Cheikh Sidi Muxtaar kunti la maanaam tariqa xaadiri la jël xam na si islam si Cheikh Sid Muxtaar la jokko ah mu tiit xam nga wàllu yu bu am ni Cheikh Sid Muxtaar jël tariqaam bàyyi ko kon ngaa tiit ah mu nekk ci tiitaange googu mu tëdd nelaw mu gis gis yonent bi yonent gis Cheikh Sid Muxtaar a ngi toog Cheikh Ahmed Tidiane a ngi toog yonent bi ngi toog Cheikh si Muxtaar ne ko lu tax nga bàyyi sama tariqa bi jël tariqa tijaani moom tontuwul yonent moo ko tontuwul ulaayika alladina hadaahum llahu leen jubal jubal jubalee ci seen njub ba tey rek yonent nga koy jàngal tariq Cheikh si Muxtaar it njub la waaye yonent nga koy jàngal ba tey kii ti mu ngi ci njub ba léegi waaye ci gént gi Cheikh Tijaani moom mu ngi noppi rek waxu dara ci kanam yonent bi Hmm. mu ne am nañ bàyyi ne am nañ soxba am nañ soxba nag boobu jublu ci soxba bi maanaam bokk ci saxaaba yi waaye maanaam ngëneel ak soxbatu dégg nga te loolu ba tey ñu ngi koy jëlee ci ndax almaru maa man ahaba waaye ñu xam nañ Cheikh Tidiane wax na ne jaay saxaaba yi seen dox jëm ci yàlla ak doxi ñeneen ñi mu ngi mel seyrul qataati ma an namlati picc mu ñuy wax tipp ripp dafa gaaw lool xam yoon lool xam nga sànqalañ bi wala xorondang ni mu yéexee boo ko comparé picc moomu ni mu gaawee Cheikh Tidiane mu ne doxi saxaaba yi jëm ci yàlla ak doxi ñeneen ñi jëm ci yàlla noonu lañ utee waaye nag yàlla ci mbaaxam ku ko neex mu éegal ci ñu ko neex loolu rek la bàyyi wax yàlla ci mbaaxam ku ko neex mu égal ci ñu ko neex yonent bi nee na saxaaba yi nit a ngi ñëw ci seen gannaaw yaati zaman lil aamili fihi ajru xamsina qaalu minna aw minhum qaala minkum li anna lakum bil xaqi awaana yonent nee na saxaaba yi ay nit a ngi ñëw ci seen gannaaw buñ jëfee ngeen jëf li leen yàlla fay ci benn ci seen jëf juróom fukk la leen yàlla di fay ñooñu saxaaba yi ne ko juróom fukk ci suñ fay ñoom ñun wala ci seen fay ñoom mu ne ko ci seen fay yéen ndax yéen da ngeen a am ci dëgg ndimbal kuy dund ak bi def lu baax yow la gën a yomb ci kuy dund keneen te xadis ji wax ne dafay mel ni ku jàpp ci diineem dafay mel ni ku bank xali safar gili ci safara ku ko bank xali safara ku ko bank ni muy jafee ci yow bu demee ba jàpp diina jafee noonu ñooñu noonu la seen yool di toll kon ngëneel yooyu yépp di di muy tudd moom lay junjaar rek ci leetar bi moom la ñaan sax fii ci leetar bi yàlla xool leen ci aynu rida wal lutf wal mahabbati wal qabul jaam yi yépp am nañ lutf rawatina ñi gëm yàlla axsaabu Cheikh Tidiane lahum lutfun xaas baad lutfin am te loolu yépp Cheikh Tidiane ci lim ñaan yonent bi mu garantir ko ay ñooñam la moom la bàyyi di junj fii ci ñaanam yàlla wërsëgal ñu ak wërsëgal leen ay xol yu sell ak nopp yuy wëttu wëttuñu dëppale ñu dëppale leen ci li nga xam ne ngërmaande yàlla ci la nekk soxlaal ñu soxlaal leen ci li nga xam ne njëriñal àddina ak àllaaxira ci la nekk bañ a soxla li amul njëriñ gannaaw loolu mu ne maa ngi leen di dénk laab ak ndox maa ngi leen di dénk laab ndox di góorgóorlu di jàpp ci julli ak xereñee julli maanaam nga koy defee ni ko yàlla bëggee inna allaha yuridu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu xam nga ni yonent bi gis na kuy julli para para para para mu ne ko jugal daw go mu def para para para mu ne ko julle go kon julli dañ koy xarañee bo taxawé da nga taxaw ba emo dal bo sëggee na ko nonu jang alquran ànd ak sellal gannaaw boo laabee loolu yépp mo lay may ak julli ak tim wirdo wi di ko nim gëné mhm waye bu lur do waxtu ne di def ni ci mbedd mi def nii waxtu ne yaangi ngi ba la war nuyu do ko meuna fay bu ko defé waxtu ne nga nanu nit ñi di la sib di foog ne yow da ngay jaay ne ya fi dàq wirdo de nga eh, dana am ku la romb sax ko xamne xamu ndax yow da nga am lo war lo sa bop heure boo xam ne def do wax ak ken nga nga taseeg mom mu nuyu la fayé ko seen digënté yàqu loolu yépp kuy xereñee wirdo mën na ko moytu ku nekk man nga am heure bo xamne bo bëggé bëggee wirdo rek dem ci ben koñ rek wirdu fa sa wirdo ba pare jug dox dewan sa soxla yi mu ne nangeen na ngeen di setantal wax yàlla yàlla wax warattilil qur'aana tartilan loolu mu ngi fàttali ci julli mu ngi fàttali ba tey ci wirdo yaa ngi julli nanga nga fàttaliku tartilal qur'aan nga koy jàng ci tartil ci tajwid génnee atte yépp di fàttaliku ndigal yàlla yi ci mbooleem jëf yi tim da koy fàtt da ko war di fàttali booy jàng sa wirdo bokk na ci xereñee ko booy jàng wirdo yi na nga fàttaliku li ngay wax yëpp yàlla la ko sant ida qara'ta alquran fasta'id billahi min shaytani rajim yaa ngi bëgg jàng fatiha jiital nga a'udhu billahi fàttalikul ne yàlla la sant nga wax a'udhu billahi yaa ngi jàng fatiha fàttalikul ne yàlla wax ne faqra'u ma tayassara min alquran jàng leen alquran lu ngeen ci mën a jàng yaa ngi wax astaghfirullah fàttalikul ne yàlla wax ne baalu leen ma yaa ngi koy baalu yaa ngi julli ci yonentu bi yaa ngi fàttalikul ne yàlla wax ne sallu alayhi wa sallimu yaa ngi wax laa ilaha illallah fàttalikul ne yàlla wax ne fadkuruni azkurkum bu boobaa sa jëf yëpp topp yàlla la loolu di ko fàttaliku ci sa wirdo ci sa jëf yi loolu daan la may xereñeeg jëf baa na ngeen fàttaliku lu yàlla wax waratil qur'aana tartilan na ko settantal ndax yàlla tartil la santaane ba pare feddali ko maanaam bu jàng rek jàng bara bara jàng ko baat bu nekk nga ko ci génn waaye ba pare daf koo feddalihaat ci masdar mu ëkkil li nafsi ne tartilan mu ne naa waratil qur'aana rek em ci waaye mu feddalihaat ko ci tartilan mu ne yàlla nañu yàlla wërsëgal wërsëgal leen ci mbaaxam ak teraangaam dégg goo xam ne ci moom yàlla la tukkee yàlla kum dégg loo nga dégg bàyyi ne dee leen dajaloo di wasif yenn góor ñi waxut jigéen ñi nga xam ne jigéen mën naa toog néegam wasifa foofu léegi bu demee zaawiya bi wasifa it dana doy waaye Cheikh Tidiane daan na nañ sorelante nokki góor ñi ak jigéen ñi ci wasifa bàyyi ne lii ma wax fii ku ko jàpp mu ngi ci sama garanti ci dund ak ci deeyam du ragal du tiit lu tax ku ko jàpp rek nekk wàllu yàlla te wàllu yàlla yàlla mi wax ne laa xawfun alayhim wa laa yaxzanun alladina amanu kaanu bin loolu ibrahima ne xayatullahi tijaani ratafa allah bihi fi daarin amin yursalu ila al ahbab haythu ma kanu bi wasati al muqaddimin ne la tarbin ngi ko yónnee taal bi fu ñu mën ci jottaleeg mu kat barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan